bismillah barke borom Touba asalaamualeykum wa rahmatullah noo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara gannaaw lool yi seen naafila guddik tey gi di guddik ñaar fukkeel gi ci weeru koor Serigne Souhaïbou Mbacké nee na ku ci julli juróom-ñetti rakan rakan bu ci ne nga jàng fatiha benn yoon jàng inna anzalnaahu basaar yu jeex benn yoon jàng xul huwallaahu ahad basaar yu jeex ñetti yoon ku def loolu des na ko bindal tuyaaba ju toll ne limu mbooleem lu nit masa def ci lu baax te it des na ko jéggal bàkkaaram yépp yu njëkk ak yu mujj te des na ko musal ci lëndamuk bàmmeel te it yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallama lay àndal dugg aljana yàlla na nu ko yàlla man loo tanu def ko te def ko namu ko taamoo mu nangul nu ko fulal nu ko làqal ñu ko fu yàq yégul barkib Seexul Xadiim